actuel ministre boo xam ne ci moom la féete mooy li may wax sànq ministre boo xam ne Macky Sall la àndal du bi élection yi ñëwee mu roof marche arrière ñun ñi doon xeex Macky mais kooku rocc ci Macky Sall la la lamiñ lamiñ lamiñ waxul dëgg wax leneen kon ngeen xam ne li ñu jàpp mooy liy defar réew mi dong mooy li ñu tax a jóg la ñu nekk boo gisee nit ñi am lu leen metti dañu waxoon ne dundinu etaa bi dafa ëpp wàññ ma ne leen est-ce man Bougane dama gëm ne makki sàll defut lu baax ci Sénégal moom loolu laa gëm Macky Sall jël réew mi pàcc-pàccal ko fu nekk mu def fa direction fu nekk mu jël nitam roof fa yow nga ñëw jël nguur gi Macky Sall na mu pàcc-pàccale woon direction yi nga bàyyi ko fa jël say nit yow it roof c'est comme pour dire Macky Sall la mu doon def baax ma alors que man liggéey lu ci bari moom cancer au Sénégal la kon su état ak train de vie de l'état loolu encore une fois soxlawul majorité assemblée nationale pour wàññi li état bi dunde ak assemblée nationale ngir ñoom ñu ëpp fa parce que loolu ay décision la yoo xam ne ki yor guy gi moom moo ko war a jël malheureusement c'est pas dañu waxoon dañuy def appel d'offre appel à xam ne dañu xeex boobaak léegi jàpp ne bokkuñu ci kër yi nga xam ne dañu leen di defal coup de ñu jàpp ne ñoom war nañu bokk ci liy defar Sénégal di xaal appel à candidature fulaas dallu xëddéen dégg naa sax léegi ci biir débat yi boo leen waxee appel à candidature ñu ne certains postes de bu fekkee ne li fi nekk yëpp joxe ngeen ko lan moo ci des lu fi des lu ñuy joxe amul dara amul dara loo xam ne moom moo fi des lu ñuy joxe kon nit ki li mu diggee da ngay fexe warloo ak moom président mu ne <laughs> bi muy ñëw fekk fi fonds politique euh, monsieur le président monsieur le président man Bougane Gueye maay wax a yow monsieur le président le rapport d'exécution budgétaire bu premier trimestre man waxantuma de président li mu wax ci fonds politique yi amul waa léegi d'accord fekk na politique yi moom nee na fekku fi fonds politique dëgg la fonds politique mbind mi maanaam kaddu gi fonds politique amul mais fekk na fi fonds spéciaux waaw le rapport d'exécution budgétaire bu 2000 bu premier trimestre moom président de la république dama ne ko je le mets au défi budget présidence vingt deux lañ ci lekk lañ ci consommé la ca des anam bu ko Macky Sall lekkee nañ ko woo mu ñëw ñu dóor ko ci mbaam comme ni leen defoon moom bu ci kaso document mu ngi ci taabalu président ce document la mu ngi ci taabalu président présidence de la république vingt neuf vingt huit pour cent lañ ci consommé li ci des anam le budget global vingt quatre virgule quatre vingt trois pour cent la ñu consommé la ci des anam donc moom président bu ne fekk fi fonds politique waaw nañu wax fonds spéciaux yi anam et et encore une fois et, et encore, encore, encore une fois, encore une fois ma lenn lu may mu leer man Sénégal rek moom ma intéressé lii ba ñu ko 30 mai je crois lañ ko déposé mu ngi ci table assemblée nationale président wu assemblée nationale moom président am na ci copie yeneen ci structure am na nañ ci copie du document bu confidentiel nag balaa ñu naan woy gars yi nan ko nëbb jant bi lii du confidentiel gis ngeen kenn bind ci confidentiel parce que alalu réew mi la alalu réew mi ku nekk ci ñun mën na ko kon moo tax bi ma ko déggee mu ne caisse noire en fait fonds politique fekk ko fi xam nga politiciens yi dañuy nax sénégalais xam nga bu la nee fe man fekkuma fi fonds politique nga ne waaye gars yi dóor nañu fonds yi lekk nañ ko mais yow fonds yi li ñu voté deux pour cent du budget 28 pour cent du budget la ñu consommé ci au niveau de la présidence et globalement 24 virgule 8 pour cent la ñu consommé mais cin faqul bënnul la fa newoon jógu fa ñu wax fu mu jaar mais ali kalaj gi mooy ñoom dañu waxoon ne dañu waxoon ne fonds politik dafa xaraam document programmatique dama ne fonds politique yi dañu ko war di comptabiliser pour lu cay génn ñu xam fu mu jaar mais ñoom nee nañu fonds politique dafa xaram nee nañu fonds politique dañ koy soppi fonds secret waa léegi wax leen six ak neuf ndax boo ci juutal day wuteeg morom ba man Sénégal rek moo ma intéressé Sénégal rek moo ma ñor te ci loolu rek lay dox dégg naa ci biir kàddu yooyu nga xam ne sax yëkkati nañu ko parce